sëñ bi ma Fall ñu ngi lay nuyu. maa bu baax. yow yaay njiital euh, fédération bi nga xamante ne moo ëmb kuréel yi euh, taxaw euh, te kon way laago yi di ci nekk ak yow kon dinañuy waxtaanee li nga xamante moo jëm ci way laago li ko und seeni i jafe-jafe yëpp ci Sénégal ndax li ko waral mooy bëccëg bi nga xamante ne daanaka 1992 ba léegi ñu ngi koy màggal ci àdduna wërngal këpp ñetti fan ci weerub décembre àdduna jagleel ko ñi nga xamante ne ñooy dund ak laago ban solo la bés bi am ci yéen. waaw bés bi comme ni nga ko waxee suñu bés la di premier mais mel ci liggéeykat yi 4 avril mel ko ci réew mi ci nation sénégalaise noonu la 3 décembre mel ci noonu la 3 décembre mel ci way laago donc suñu bis la bis mag la boo xam ne mbootaay xeet bi moo koy jagleel way laago yi ci àddina bi yëpp parce que li tax ñu aussi dañu jàpp ne boo xoolee ci àddina bi way laago yi ëpp nañ lu mat ëpp nañ milliardu nit ci àddina bi ñu jàpp donc àddina bi bu ñu bëggee mu jëm kanam faw milliardu nit yooyu seeni soxla ñu koy boole ci li ñuy sàmba ñu ne kon bëccëg bi buñ koy jagleelee euh, way laago yi dinañu mën euh, toog waxtaane seen nekkin waxtaane aussi seen euh, seen situation Sénégal nag at mu jot dinañ ko màggal ren incha allah ñu ngi ko fas yéenee màggale Oussouye fële ci commune de Mbour département de Oussouye fa la yëpp ak autorité yi joxante rendez-vous pour ñu mën a màggal bëccëg boobu dina nekk occasion pour ñun ñu dellu siwaat ci jafe-jafe nga xam ne way laago yi ñu ngi koy dund ci Sénégal hmm. ci Sénégal jafe-jafe yi mooy lan waaw jafe-jafe yi xam nga boo ko jàngatee hmm. euh, am na jàngat bu ñu defoon ñuy wax diagnostic dafa wone woon ne Sénégal way laago yi ñu ngi dund ñeenti xeeti jafe-jafe yu tar yoo xam ni boo bëggee dimbali way laago bi jafe-jafe yooyu ngay saafara hmm. bi njëkk mooy li wax accès à la santé appareillage ak service de réadaptation xam nga handicapé boo ko bëggee dimbali li nga war a njëkk def mooy nga fexe mu dox mhm. wala nga fexe mu mën a dem mu am mobilité te euh, appareil yi nga xam ne mooy tax loolu am muy pousse-pousse yi muy beeke muy kaan yi muy fauteuil roulant muy appareil orthopédique yi ak yu mel noonu dafa nekk mbir yoo xam ni dañ koy importer te ba dafa cher accès bi dafay jafe ci handicap mhm. ñaareelu jafe-jafe bi mooy lépp lu jëm ci wàllu njàng mi ak ci wàllu formation ndax boo seetloo xam nga ñun suñu école yi ak suñu centre de formation yi bu leen di tabax du ñu sóoraale ne tabax bi ñuy def nii kat ay nit dañ ci war a jàng te ñooñu ciy jàng mën naa am ñu amee laago mhm. donc day am problème accessibilité ensuite jàngalekat yi fañ leen di waajale ñoom du ñu leen préparer pour ñu mën a jël en charge ay jàngkat yoo xam ne dañoo amee laago mhm. beneen bi mooy matériel didactique bi ñuy jëfandikoo ci école bi aussi souvent booy xool dañuy fàtte ne way laago mën na jàng ndax boo xoolee xale boo xam ne dafa silmaxa xale boobu soxlawul craie soxlawul ardoise soxlawul tableau soxlawul livre ndax du gis mm-hmm. waaye am na beneen xeetu matériel boo xam ne mooy remplacer lu ñu koy wax poinçon ak tablette waaye matériel boobu nag bokkul ci lu ñu répertorier ci matériel scolaire ba tax na doo ko mën a gis wala boo ko gisee day cher yooyu yëpp ak yeneen bokk na ci yoo xam ne dafay indi jafe-jafe ci ci njàng koy laago yi mm-hmm. euh, bi mooy jafe-jafe am pour liggéey te loolu aussi xel mën na ko dégg ndax bu fekkee yow amoo possibilité dem école amoo possibilité def formation doo am mhm. boo amul métier amee laa ko mënoo def leneen leneen mënoo agressé sax mënoo ko def mënoo bëri ji aussi mhm. li def rek mooy nga dem yalwaani mhm. donc boo xoolee yalwaan bu bëri bi ndaw ñi di ko def ndakaaru ak dëkk yu mag yëpp maanaam dañu amul beneen alternative fekkoon école mënoon na leen jël centre de formation yi mën leen jël dinañ mën a jàng dinañ mën am formation dinañ am métier mën a yaakaar liggéey mais bu fekkee loolu yëpp amul euh, amoo leneen looy def lu dul yalwaani mhm. ñeenteel bi mooy jafe-jafe li ñuy wax aménagement du cadre de vie ak accessibilité mhm. parce que aussi way laa bi dañu war a fàttaliku ne citoyen mhm. boo xam ne dafa war a bokk ci liy doxal société bi te ñun dañoo bëgg a contribuer ci tabax bi ñuy tabax Sénégal am nañ laago certes waaye dañu bëgg a contribuer ci tabax bi ci tabax Sénégal waaye pour ñu mën a contribuer foog ñu créer ñu conditions yi. Mhm. donc ni ñuy aménager cadre bu vie bi maanaam tabax yi ñuy def ni ñi war dem ñu soor ne am na ay waalaago yu war a dem ci tabax yooyu. Mhm. ndax Sénégal xam nga ne ñu ngi defar ay pon ñu defar ay autopont ñu defar autoroute ñu defar BRT ñu defar TER yooyu yëpp am na solo. Mhm. mais yooyu yëpp aussi pour citoyens yi jëfandikoo la jëfandikoo ko la te war nañu bàyyi xel ne. ci biir citoyen yooyu am na ci ñoo xam ne dañoo am laagootu te dañu war a jëfandikoo infrastructure yooyu. Mhm. loolu ñooy wax pour que li nga xam ne daloon nañu ci corniche Ndakaaru bi bañ ñoo dal ci infrastructure yu bees parce que corniche Ndakaaru bi tabax nañ ko yëpp nee nañ rafet na. Mhm. corniche bu baax la lépp am na solo waaye surtout ci way laagooñ ndax tey boo xoolee corniche ba boo jëlee boori Soumbédioune ba nga dem sax boori Radisson. Mhm. nga gis handicap bi bu kaanam. wala bu yor fuus sam taxaw lenn luñ ko prévoir pour mu mën a jéggi tali bi dem beneen côté bi. du dëgg bu ko defee rek mu ngi ci ay risque loolu li muy tekki mooy bi ñuy tabax infrastructure yooyu sóoruñu woon ne ci biir citoyen yi am ci ñoo xam ne dañu amee laago mhm. donc loolu dañuy wax ne cadre de vie aussi boo bëggee garantir participation handicapé yi faaw aussi ñu fexe ba cadre de vie bi am accessibilité mhm. léegi nag jàpp nañ ne xeet ñeenti xeetu jafe-jafe yooyu mhm. bu saafara woon tey dina wàññi lu baree baree bari ci jafe-jafe handicapé te ci réew kon jafe-jafe yi bëri na léegi ban xayma kon ngay def euh, ci politique yi ci nguur gi indi bokk na ci loi d'orientation sociale ak carte d'égalité des chances waaw loolu comme ni nga ko waxee xam nga carte euh, loi d'orientation justement mhm. ginnaaw bi ñu defee diagnostic bi ci lañ ko taxawale woon mhm. mu war a nekk loo xam ne dafa war indi ay tontu ci jafe-jafe yooyu ndax ci biir loi def nañ ci mécanisme yoo xam ne bu ko doxalee ni ñu ko war a doxalee dina indi tontu yu wóor ci jafe-jafe yooyu ñu lim léegi muy lu mel ni programme RBC lu mel ni fonds d'appui aux personnes handicapées waaye lu mel ni carte d'égalité des chances ndax xam nga ne carte d'égalité des chances am euh, mécanisme de protection sociale la boo xam ni way laago bi bu ko yoree normalement war na ko yombalal lu baree baree bari hmm. léegi carte d'égalité des chances bi lancé nañ ko depuis deux mille quinze boobaak léegi am na juróom-benn at xam nga handicapé yi téeméeri yoo jël Sénégal fukki ak juróom dañoo amee laago loolu ñetti million nit la hmm. waaye deux mille quinze ak léegi juróom-benni at seulement soixante huit mille cartes lañ defar ci nga war ko defar ñetti millions yi xam nga loolu defar bi yeex na hmm. ensuite bu weesoo loolu ñi nga xam ni sax am nañ carte boobu à part ñenn ñi ci jël ci bourse de sécurité familiale ak ñu ñu jël ci CMI pratiquement ñi yor carte bi dañuy jàpp ne carte bi sax amul njëriñ ndax dimbaliwu leen benn service hmm. alors loolu nag li ko indi mooy li ñuy wax ci tubaab handicap dafa multisectoriel dafa bari secteur yu mu taal loolu moo tax fédération nga xam ne euh, kuréelu mu ëmb kuréelu way laago yëpp di partenaire état bi di interlocuteur état bi ñu def ñaari proposition mhm. benn bi mooy carte d'égalité des chances ñu def ko mu nekk programme national de la carte d'égalité des chances loolu intérêt bi mooy boo ko defee noonu di nga ko mën a jox ni ñu koy waxee moyen moyen financier moyen technique moyen humain parce que loi bi dafa wax ne handicapé bu nekk war am carte bu ko defee service village lu mu sori sori dëkk lu mu ruqe ruqe service yi mën a dem foofu fekk fa handicapé yi enrôler leen wutal leen carte hmm. loolu bu ñu amee programme national dina ko am hmm. beneen bi mooy ñun dañu wax ne nañu def conseil présidentiel sur le handicap ndax xam nga tey premier ministre amatul ci réew mi hmm. léegi handicapé problème am njàng la problème problème am transport la problème am liggéey la problème am habitat la bëri na service yu mel nga xam ne ma lim benn bu ci nekk bokkul ak sa morom ministère bu ko yoree. Mhm. du dëgg. Mhm. donc bu ñu defee conseil présidentiel président de la république bu toogee ministère yooyu yëpp wër ko moom dina leen mën a jox ndigal ku ci nekk la nga war a def ci carte bi di nga ko def ba bu way laago bi yoree bi mu mën ko amal bu boobaa ministre transport dina jël disposition yi mu war pour accessibilité transport. Mhm. ministre a la santé dina jël disposition yi mu war a jël. yeneen ministres yi mu concerné aussi jël disposition yi mu war a jël loolu moo tax fédération yi proposé benn ñu jël carte programme national ñaar ñu def conseil présidentiel sur le handicap loolu yaakaar na mën a indi saafara. yaa ngi doon wax ci wàllub xëy mi tamit nan nga jàngatee ni ñuy dugalee kon euh, way laago yi ci fonction publique yi ban politique ci wàllub recrutement euh, la waaw d'abord loolu li ngay njëkk a fàttali Jacques mooy loi d'orientation sociale dafa wax ni hmm. saa yu recrutement amee ci fonction publique quinze pour cent yi nañ ko jagleel way laa koy hmm. loolu nag amagul bien que ñun ñu ngi rafetlu parce que nit aussi buñ defee dara mu baax dalay wax ne lii baax ñun ñu ngi rafetlu ne bari na tey ci handicapé yoo xam ne recruter nañ leen ci fonction publique te administration yu bëri boo demee di nga leen fa gis loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax waaye mataguñu quinze pour cent mais ñun li ñu ñaan état bi mooy li ñuy ñaan ni am na réew yoo xam ne def nañ ko ci biir sous-région bi te loolu jafewul mooy handicapé yi nga xam ne góorgóorlu nañ parce que tey jii jàk handicapé bu góorgóorlu ba am diplôme rek loolu moo la war a wan ne def na effort yu méttee méttee méttee ndax comme ma la ko waxee sunu environnement école yi waajaluñ ko pour mu jël handicapé kon bu fi handicapé góorgóorloo ba am diplôme jàng ba dem université jàng ba am formation ba am diplôme war nañ ko wutal mu liggéey pour encourager ko effort yi mu def waaye pour jox signal xale yeneen pour ñu bàyyi yalwaan mën a góorgóorlu mhm. def jàng yi xam ne jàng mi am na njariñ mhm. moo tax ñu état bi recruter bépp handicapé boo xam ne jàng ba am diplôme. que ça soit li nga xam ne. lu automatique parce que loolu matuñu dix mille matuñu cent mille bëriwuñu. l' état def benn programme de recrutement spécial bépp handicapé boo xam ne am nga diplôme rek. Mhm. ñu dugg fonction publique. loolu dina encourager ñoom effort du duñu dem yalwaani dinañ dem góorgóorlu dem jàngi parce que xam nañ ne buñ jàngee ba pare dinañ liggéey mhm. loolu comme ni ma ko waxee jafewul am nay réew yu ko def ba pare Sénégal mën na ko def mhm. te nombre bi bëreewul bëri boo xam ne dina jaaxal budget Sénégal loolu moo tax ñun ñuy ñaan yan secteur nga jàpp ni war ngeen ci mën a liggéey tamit secteur yi yëpp Jacques handicapé yaa ci góor góorgóorlu mhm. moo xam droit la moo xam économie la moo xam gestion la moo xam marketing la moo xam communication moo xam comptabilité secteurs yi bëri moo xam administration yëpp handicapé yi jàng nañ ba am ci diplôme taxaw di xool liggéeyuñu ñooñu nag mën nañ leen recruter dugal léegi ñu jàngul nag parce que ay jamono nguur gi mu ngi doon wax fii ci ab fonds bi nga xamante ne toll nañu ci ñetti téeméer ak juróom fukki milliards yi nga xamante ne dañ ciy financé euh, ndaw ñi ci ay xeetu projet ndax jàpp nga ni tamit euh, sédd nañ leen ci seen wàll yéen. waaw xam nga loolu. Hmm. comme ni ko waxee ñi jàngul aussi ci handicapé yi te du seen faute dañ leen war a accompagner. loi bi am na fond d'appui waaye fond boobu ñuy wax milliards yooyu. yooyu dañu bëgg handicapé yi ñu wutal leen ci ligne ñu kat ligne bii jagleel nañ ko ndawi handicapé yi bu ko defee ñi nga xam ne jànguñu wala amuñu diplôme dañ leen mën a financer encadrer leen dafa leen formation yi gàtt financer leen ñu mën a def ay activités yoo xam ne dina leen jural njariñ bu ko defee ñu ñu jëlaat seen dignité alors donc ñun li ñu bëgg mooy ci programme boobu mu am benn ligne spéciale dédiée à la jeunesse handicapée loolu ñu ngi def plaidoyer bi bëgg nañ fexe dinañ fexe ba ñi ko war a yëg yëg ko pour que ñu mën a am benn ligne boo xam ne dañ koy jagleel ndaw handicapé yi. ci bëccëg bu tey bi xam ngeen ni kon ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu édition bi la ñu ci waxtaanee wàllub leadership ak taxawaay bi euh, handicapé war a am. ci li nga xamante ne mooy euh, xeex mbas mi ba ci sax bu fi jógee tamit ban euh, taxawaay ngeen ci war a am dugal seen loxo ngir sukkaliyaat seen i réew sukkaliyaat koom-koom yi lan nga jàppee ni ci xayma dund ngeen ko ni gàllankoor ni impact yi nga xamante ne mbas mi am na ko ci way laago waaye tamit seen loxo ci sukkali réew waaw euh, mbas mi bi mu ñëwee xam nga dafa nekk loo xam ne dafa dal suñu kaw ñun ñëpp ñu ngi déplorer am nañu suñu quelques camarades yoo xam ne malheureusement mbas mi dafa leen yóbbuwaale ñu ngi leen di ñaanal yàlla yeesal ma ci seen kaw. mais bi loolu amee aussi fédération bi dafa taxawaloon benn comité national de suivi comité boobu moo doon saytu handicapé yëpp ci réew mi ci la ñu gisee ne kat même bi ñu joxe kit alimentaire yi ñu ngi fàtte handicapé ñu alerte bi ñu alerté it euh, président de la république dégg ñu ngi koy gërëm bu baax parce que un million de kit la waxoon waaye bi mu ñu suñu kàddu yokk na ci cent mille kit pour ñu fexe ba handicapé yëpp ci Sénégal mën o jot aussi seen wàll ci appui boobu acteurs culturels yi aussi ay la ñu leen bi ñu leen di jàppale aussi acteurs culturels handicapés yi fàttewuñu leen joxoon nañ leen seen wàll ñi nga xam ne dañu nekkoon ci atelier yi wala ci garage yi di defar seen activité bopp te mbas mi dafa metti woon ci handicapés yi ndax xam nga ñun dañ leen teela a wax ne nañu dem confinement ndax li tax ñuy confinement xam nga handicapé bi li ëpp ci handicapé dañu nekk ci mbedd mi di yalwaan boo nekkee ci mbedd mi di yalwaan yow mën nga jël mën nga ko joxe ndax nit mën na ñëw di moom dafa am bi te xamu ko donc bu yëkkatee dara sarax la ko nga jël ko kon na du prise bi waaye yow tamit nit mën na la sarax ne la wecc ma nga di ko wecc yow nga jox ko virus bi loolu la ñuy wax vecteur de transmission donc loolu ñoom ils étaient exposés te mënoon nañu exposé aussi société bi loolu moo tax dès le départ bi nga gisee loolu ñu ñu wax leen ñu confiné wu confinement nag metti na ci koo xam ne li muy dunde mi koy wute ci mbedd mi loolu moo taxoon ñu doon xeex pour ñu mën a am ci ki yi leen accompagner mm-hmm. bon Euh, ba fi ñu toll nii ñu ngi continuer plaidoyer bi pour que accompagnement bi surtout activité économique yi ñu gën a accompagner way laago yi ñu mën a ñu mën a def seen i activité hmm. mais nag loolu terewul ñu góorgóorlu ci fédération bi jéem a def ay effort def euh, formation yu bëri def renforcement de capacité yu bëri pour mën a taxawal dëgg dëggal leadership bu handicapé yi hmm. li ci def mooy comme dañu toll ci période relance ñu ngi relance waat économie ñu ngi relance waat activité yi li ñuy ñaan rek mooy relance boobu ñu bañ a fàtte ne handicapé aussi ci lañ bokk te war nañ leen ci boole. jërëjëf kon yow yaay njiital fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées ma fal ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf.